muy Tawfekh ju rëy kenn xamul fu mu yem. ngir jot sunu ay vidéo bi bokk ci programme bi ah di jot toutes les informations la chaîne YouTube Tawfekh Production. ah lii sëriñ bi ma la may. gën gën ñoo gàtt ñoo Tawfekh sëriñ bi. jërëjëfati sëriñ Saliou. jërëjëfati maa ngi ñaan ci barkeb sëriñ Saliou sëriñ bi kàttanal ma dimbali ma ba li ma bëgg a wax ma mën koo génne ndax moom day lu ma bëgg a wax rek xeeb ko waaye nag faw rekk nu nekk ci tey jéem balaa maa yi dinaa yëkkati kàddu nuyu siyaare sëriñ Muntaxa sëriñ Touba di ñaan mu yàgg fi te wér naalam bii mu naal ci liggéeyal sëriñ Touba yàlla na ko àggale ci noonu lay nuyoo sëriñ Cheikh moom sëriñ Salim sunu sang ba di ñaan mu yàgg fi te di ko ñaanal njabootug sëriñ Touba gépp di yëkkati kàddu di nuyu sunu waajur yi nga xam ne ñu ngi fi teew muy soxna Mboose ak soxna Aïcha di beral nuyoo sunu ganu tey sëriñ Mbàkke yu fay jëwriñu sëriñ Tuubaa mi teew ci sunu biir di ko nuyu di nuyu délégation bi mu àndal waa Masaalikul Jinaan yi kilifa yu tedd yi mu àndal fu mu jëm boo demee këram boo demee masaalikul jinaan ñii rek ngay gis ci wetam ñuy jëm yu tedd yu baax maa ngi leen di nuyu te di leen jox seen wàccuwaay di wax sama mbég nag mbégte moo xam ni dara waralu ko lu dul sunu mag ju baax ji ñëw fii ngir sëriñ Touba ñëw fii ci ñëw ba mu fi daan ñëw ci kanamu ku tedd ki moom sëriñ bi àndam moom du tey lu yàgg la sëriñ Saliou leen boole woon liggéeyub sëriñ tubaab yi sëq nañ ko ba tey pàttaliku yu rafet rek lañu am ci diggante Serigne Mbacke yu fay ak Cheikh Béthio ay bokk lañu woon ay xarit lañu woon. daan nañu ànd ci sëriñ saaliw di ko liggéeyal pour exemple léegi rek ñu leen di wax xeer wu jëkk wi ñu teg ci jumaa ji num ko sëriñ bi digale woon mu ànd ko moom amoon nañu xam-xam wérit ni moom sëriñ bi amoon na cofeel ci moom mii li ko indi bari na waaye biñ ci mën a màndargaal rek mooy yaat ma fay mi mu jël jox ko doomam tey dara warul ko lu dul kóolute gu mu am ci mbàkk yu fay ak bëgg gum ko bëgg loolu bi benn ci pàcc yi nga xam ni mën nañ koo lim ci diggante sëriñ bi ak mbàkk yu muy lu yàgg kon waaye tey sa ñëwin bii daf ñoo neex lool ndax kaay ñu teeru Serigne Touba ku la ko wax bëgg na laa dimbali kon nanga xam ni boobaak léegi de amaguñu fi gan gu mel ni yow ku ne ñëw na fi nag waaye sa teewaay bii tey ak nii nga fi ñëwee ñëw fii ci ndigalul sëriñ Touba ñëw ngir boole ñu ci liggéeyub sëriñ Touba ñun amuñu sa fay liñ daan wax ci yow rek moo na ci yow baax te bëgg dimbali ñëpp rek li nga yor day yow xam naa ni xam nga ko Serigne Touba nag du juum waaw mbiram fu mu ko def rek fu ko mate la sa taxawaay ci ndakaaru ñëpp ko naw murit yépp la seen xol sedd ci yow lii nga def ci liggéey yi ci jumaay sëriñ Touba yi taxawaay biñ ci taxaw ak lim la jaral nga xam ni da ciy am loo xam ni sax mën naa am ñëpp duñ ko xam waaye man damaa am loo xam ni dama ko mën a seere ci yow muy muy muy muy ak njub ngoo liggéeyee jumaa ji njub gu nga ko liggéey ndax Sëriñ Tuubaa daa def jumaa ji nga xam ni ñi nga xam ne ñoo doon liggéey jumaa ji muy CDE nga xam ne day kër goo xam ni ku ma xam-xam nga ma ak ak kër googu ma nekkoon fa ci kilifa ya bokk ak ñoom nga xam ne li ëpp ci li nga daan fay ci sama loxo nga ko daan teg ma teg ko ci seen loxo ndax service recouvrement ba maa ko yoroon te am naa lu ma séqoon ñoom samay xarit lañu waaye dañ daan ci man lañ daan jaar sax pour am intervention ci yow ndax rigueur boo leen teg ci liggéeyu jumaa ji boo doon keneen na loola neex mën nga ko faa def te kenn du ko xamit nag bu boobaa ndax ñooñu ay professionnel lañu ay kilifa lañu te dañuy liggéey ku ne waaye maa mën a seere man ni njub gu wér nga liggéey ak jumaa waaw bu ma ci xamoon leneen sax man naa am duma ko wax waaye nag maa lay seere yow ni liggéey bu wér ci njub gu wér nga teg yëfi sëriñ Tuubaa yi sëriñ bi juumul jël liggéey bi teg ko ci sa loxo mate nga ko sëkk maa ngi la ciy ndokkeel te di ci bëgg lool nag ndax li nga nu yéene xam na maa ngi lay sant cant gi nag duma ko wax ba yeggal te ma sëriñ Muntaxa sëriñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te ndax fii bu ma fi toogee mbooloo mi di ma déglu sëriñ Muntaxa tax li ma doon doon naa ko dëgg la maay doomi sëriñ bi maay ab taawam fii bu ma fi toogee war naa fee toog dëgg la waaye nag lii day mbirum sëriñ Touba di ay yëfam ci lu wér mu wóor ma ni bu ma teguwul woon ci yoon wi nga xam ni moom la sëriñ Touba bëgg lii duma ko am te sunu jàmbaar ja day di cheikh bi moom day ak taalu bi rek la ñu ay discours boo ko dégloo ak ak bi rek la tege bëgg sëriñ Tuubaa rek la tege daan nañu wax ni nu barab boo bii di barabu sëriñ tubaab bi képp ku fi toogee yaay sëriñ Tuubaa wax nañu ko ba tey lépp loo xam ni waa kër sëriñ Tuubaa yi jaar def nañ ko digal ko ko jëfe na ko ñi fi jaar ñépp ca sëñ Abdoulaye ca toogaayu sëriñ Saliou ca yokkum jumaa ja sëriñ abdulaatu ko jëkk a tuddee Cheikh Béthio ci ci ci ci ab bataaxal mu woote yokkum jumaa ji sëñ bi dem fa yóbbu ci ndigalul sëriñ saaliwu la mu doon participer ca jumaa ja leetar ba ba muy joxe la muy joxe ba noppi ca jamono yooyu un million et ca jamono yooyu sëñ Abdoulaye lettre ba mu bind Cheikh Béthio la ci bind kon kooku ci ndigalul Serigne Touba rek la mas a musta xam leneen lu dul jëfe ndigalul Serigne Touba li fi xew xew fi Serigne Touba woo ma jox ma ndigal ma jëfe ko waa tey ndax bu ma juyoo woon maara deytaal yi ak ndigalul Serigne Mountakha loolu ndax tey di ñëw fii ndax yéen ñii di ay murit ndax ñun kat ay taalibe lañu ay murit lañu ay cantaakoon lañu laata nuy doon ay cantaakoon ay muriti Serigne Touba lañ ab murit buñ ko deex Serigne Touba tax kenn taxul yoon yi moom sëñ Touba ko moom sëñ Béthio dajeem ba mu dajeeg sëriñ Saliou ca tool baayam ba ca taset moo ko tax a doon ab murit moo ko indi ci yoonu murit mu am ndimbalul dajeeg sëriñ tubaa mu defal ko li mu ko defal kon kooka sosul aw yoon daa fekk aw yoon mu ne ca di ca liggéey am tawféex ak ndimbal lu toll ni sëriñ tubaa defal ko lu mu mës a defal kenn mu am lii mu am bu dëgg ni fekkoon ma doxe neneen nu ma war doxe ci mbir moomu waaw ndax bu boobaa man fu ma jëm ndax bu boobaa danaa mën a toog fii jàkkaarloog yéen ñii di wax lii may wax du ngeen ko nangu ndax yéen ay murit ngeen te ku juyoog Sëriñ Tuubaa doo toog murit waaw foo koy dooneeti kon man am naa ndimbal am naa tawféex sëriñ bi loxoom ba jógul ci ñun dimbali nañu ba loolee ba mu xëyee la muy rëy rëy rëy di diis diis mu may ñu mat gu toll ni ñu xam ne ñun kat yëfi sëriñ Touba bi moom moomee yëfi Serigne Touba la ñu delloo ko Serigne Touba moonu may lii ñu am bañ ko jëfee ak léegi gis ngeen dox bi ni mu gaawee gis ngeen ni mu yombee gis ngeen tur yi ñu jox buñ nee sëñ Saal ñu ni sëñ Saal ndigal moom de daa baax moom de daa yaru moom de dama ko sopp bu ma génnee nit ñi di tàllal seeni loxo di ma ñaan loo bis bu jot bu ma toogee nit yi jébbalu di raam di jébbalu léegi laa lay won liste njébbal yi nga xam ne ci semaine bi moo fi am ba ma war koo jébbal suñu sang kon ndigal rek a wóor ci jëleñ fas yéenee ne tey ak ëllëg moo tax sëriñ bi ñu ngi koy sant ndax lii nu am moo nu ko defal moo nu sowe moo nu moo nu gindiwaat boolewaat nu ci bu dul woon moom kon kon dara du ko jar kon nag ñu ngi ñaan mu yàgg fi téwér keroog bi nga ma wooyee jox ma ndigal wax ma ndigal noonee laa sole sama daal dem ci Serigne Cheikh ajjuma fa laa jullee bi ñu jullee ba nuppi la ma recevoir ma waxtaan ak moom ba tudd la mu bëgg ca lool ma ne ko sëñ Mbàkke yu fay de daf maa woo di ma yëgal ngan gu sëriñ Muntaxa war a amal Ndakaar mu ne ma ah, kañ la ma wax ko ko mu bëgg ca lool daal ma waaw ah, kon day mën nga caa ànd ak moom loolee day lépp loo xam ne ak taalube dana ko dana rafetalu taalube na nga ca ànd ak moom kon man am naa ndigalul sama sëriñ ndax fii ndigal li ci sëriñ Cheikh lay bàyyi ko moom laa jox sunu moom laa jox sama bopp di déglu ay ndigalam tey moytuy tere lépp loo xam ni digal na ma ko dinaa ko def lépp lu ma tere ma ma bag kon nanga xam ni am naa ci ndigalul Serigne Cheikh ànd koog yow te sawar ci lool ndax li muy Serigne Mountakha ndax li muy yow danañ ko ànd ak yow ci ni nga ko bëgge te duñ ci yem danañ waajal ay bernde bernde yu ko mate di ko yóbbul sëriñ bi bis bu ne ba keroog mu fiy jóge waañ yi niñ ko bëggee rek euh, Ousmane Fall mi ngi nële toog di jëmm ju baax wax na ma seen ndaje wax na ma la fa xew wax na ma it li ngeen tënk waañ yi ni muy toll lépp wax na ma ko ànd naa ci ak yéen te nu ngeen ko bëggee rek bu ngeen nu ko waxee rek nu fekk si leen yow xoolal ni nga ko bëggee noo ko bëggee boo ma ko waxee ma fekk si leen maa ngi maa ngi sant bu baax duma wax ba eggal te sant ma sama bokki taalibe yi sama taalibe yi ñi nga xam ni ñii ñoo gore ñii ñii ñoo xam ñii ñooy ñooy ñooy ay jot nee naa leen li ma war a gën a sante sëriñ Saliou mooy mbooloo mi ma sëriñ bi tànnal daa mel ni li mu yoroon da cee tànn li ci gën mu boole ma ak te ñii daan ànd ak moom rek a fi nekk kat ñi nga daan gis ñi ko daan ñi ko gëmoon di ko topp guddi ak bëccëg nekkoon ci wetam boo leen mu ñoom ñoo ne fii tey kon nag maa ngi leen di sant lu ma leen digal ñu def ko lu ñu xam ni bëgguma ko duñ ko def loolu nag buñ ko amee sëriñ bee tax kon maa ngi maa ngi delluwaat di santaat bu baax a baax a baax a baax sëriñ bi di ñaan sëriñ Cheikh moom sëriñ Saliou yàgg fi téwér jaa jëf amaguñ digal amaguñ digal من الوهاب ليس من العداء والعباء سيتانا من طيب الممر والأوتان فر لخير جهاد العين يسوق لخيرنا المعين هديتي من الإله والنبي كليتي صفت وصفت بي توفيهها خير ما من كتب وكوني العبد الخديم قد سبان سكر لي ميسر مسيري مختاره لي بلا مسير يا سيدي يا مويتي يا جنتي عن كل سوء ابدا يا جنتي صلى عليك من خدام وكل مسات إليه خاد لك بلا مسقة فانقاد مصلبا عليك يا مختار وليساخ كل ما أعتار دنيا وأخرى بك ذا سلاما من الحساب ومن الملام وطيب الزمان لي كما ذلك لكي